dafa am benn boroom xam-xam. mais dafa am benn boroom xam-xam. nitu yàlla. muy nitu yàlla. dafa doon yedd benn taalibeem. benn taalibeem. di ko dénk. di ko dénk. mi ngi tudd taalibe ba mi ngi tudd. taalibe ba mu ngi tudd. Maymuun ibnu Mahran. Maymuun ibnu daf ko ne ixfad anni daf ko ne ixfad anni salaasan salaasan laa taxluwanna laa taxluwanna bimraatin bimraatin qattu qattu walaw aqrataha alquran walaw aqrataha alquran ولا تكلم ولا تكلم بكلام بكلام اليوم اليوم تعتذر تعتذر منه, منه غدا غدا ولا تصل ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع muy muy ñetti ndénkaane muy ñetti ndénkaane kilifa gi dénk ko njabootam kilifa gi dénk ko njabootam bu njëkk bi bu njëkk bi dama koy dama koy wax ci arab ba pare. nee na ko wax ci arab ba pare. ni mu ko ko waxee. ni mu ko waxee. firi ko ci wolof. firi ko ci wolof. daf ko ni. daf ko ni. yaa may muun. yaa may muun. ixfad anni salaasan. ixfad anni salaasan. bu njëkk ba. bu njëkk ba. laa taxluwanna. laa taxluwanna. laa taxluwanna. laa taxluwanna. bimra'atin bimra'atin qattu qattu walaw aqra'taha alquran walaw aqra'taha alquran muy benn muy benn mu ni ko walaa takallam mu ni ko walaa takallam bi kalaamin bi kalaamin al yawma al yawma taatadiru taatadiru minhu minhu gadan gadan du ñaarango ñaarango mu ni ko mu ni ko walaa tasil walaa tasil man qataa man qataa rahimahu fa innahu laka aqta daf ko ne yow may muun daf ko ne yow may muun bàyyil ma xel ñett bàyyil ma xel ñett Maymun ibnu Mahraan Maymun ibnu Mahraan moom la kilifaam doon doon dénk ni ko yow Maymun bàyyil ma xel ñett bàyyil ma xel ñett bàyyil ma xel bàyyil ma mu ni ko kilifa gi mu yi yan la ñett yi yan la mu ni ko mu ni ko ba ba addunay tukki ba ba addunay tukki yow Maymuun ibnu Mahraan ibnu Mahraan bul wéet ak jigéen ak jigéen judul judul sa soxna donte donte koy jàngal alquran da mooy lu foofu du benn ngoog mu ni ko mu ni ko lépp loo wax tey lépp loo wax koy wax seetlu ko ba nga koy wax ko loo wax tey loo wax tey wax koog say moromi góor wax koog say moromi góor wax koog say nit wax koog say moromi koy wax laataa nga bu ëllëgee buñ la laajee ñi la yaa ko wax neel mana neel ni mukk bul ni wala seetlu ma ko woon nangam ak nangam balaa ngay wax wëlbatil sa làmmiñ juróom-ñaari yoon ci sa gémmiñ soog a wax ndax wax dafa garaaw bu ëllëgee bu ëllëgee buñ la laajee bul ni baal leen ma wala maa ko waxoon wala damaa juum nangam ak nangam bàyyil xel loolu wala takallam bi kalaamin al yawma taatadiru minhu gadan du ñaara ngoog ñetteel ba nag mu ni ko maymuun maymuun wala tasil wala tasil man qataa man qataa rahimahu fa innahu laka aqta bul fekk mukk bul fekk mukk ku dog ak bokkam ku dog ak bokkam nga jokk ko nga jokk ko bul fekk mukk bul fekk mukk ku dog ak bokkam ku dog ak bokkam nga jokk ko nga jokk ko boo ko defee boo ko defee balaa balaa weer. mu dog la. mu dog la. xam nga lu ko waral. xam la ànd ki i bokkal. ku mënu la ànd ak bokkal. mënoo ànd ak keneen loolu dafa am solo. loolu dafa am solo. Moussa. nee Moussa. Moussa. yonent yàlla Moussa. yonent yàlla Moussa. xam nga yàlla Moussa. xam nga yonent yàlla am chance su. moom moo am chance yàlla wax moom directement. yàlla moo tax Moussa. moo tax Moussa. mooy kalimullah. mooy kalimullah. moo wax ak yàlla. moo wax yàlla. da boo déggee kalimullahi rek. boo déggee kalimullahi rek. mooy Moussa mooy Moussa. moo wax ak yàlla. moo wax ak yàlla. directement directement. wax ja nag. wax ja nag yàllaa xam. yàllaa xam man xamuma. man xamuma. li la koy firndeel. li la koy firndeel. yàlla moo wax ci alquran. yàlla wax ci alquran. walammaa jaa Muusa limiqaatina. walammaa jaa Muusa limiqaatina. wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii wala arnii anzur ilayka qaala lan taraanii walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makaanahu fa sawfa taraanii fa lamma tajallaa rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa xarra muusaa sa'iqan fa lamma afaaqa qaala subhaanaka innii tubtu ilayka wa ana awwalul mu'miniin qaala yaa muusa inni stafaytuka ala nnaasi bi risalaati wa bi kalaami fa xud ma aataytuka wa kun min ashakirina walamma jaa muusa li miqaatina walamma jaa muusa li miqaatina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arini anzur ilayka qaala rabbi arini anzur ilayka قال لن تراني قال لن تراني ولكن ولكن انظر انظر الى الجبل الى الجبل فان استقر مكانه مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر وقر موسى, موسى سائقا موسى موسى ba mu demee wéeti ba mu demee dafa jékki-jékki dégg benn baat ne muy baatu yàlla ci waxin ci te gisul jëmm ji te gisul jëmm <laughs> ji gisul ni baat ba man de baat bii ma dégg. man bu doon sama sago ma gis jëmm ja. yàlla ni ko ah, a ah, déet nag. jëmm ji mënoo koo gis. jëmm ji mënoo koo gis. mu ni ko lu ko waral. mu ni ko lu ko waral. dégg leen baax baax wax bi. baat bi dégg nga ko. baat bi dégg nga ko. waaye jëmm ji mënoo koo gis waaye ko lu war a ko gis. mu ni ko mu ni ko xañuma la jëmm ji. mu ni ko xañuma la jëmm ji. waaye da maa attanul. waaye ko lu ko waral. mu ko lu ko waral. sa gët sa ñaari gët yii. mu ko wu man yàlla. préparé ko man yàlla. pour mu attan. pour gis sama xar kanam gis sama xar kanam. dégg wax bi. dégg ngeen lan jooju. gis nga lan jooju. moom la ñuy wax. moom la ñuy wax. lanu mu àqat. lanu mu àqat. du lanu mu abbat. nekkul lanu mu abbat. mu àqat. ak mu abbat. bokkuñu. lanu mu àqat lan jooju lanu mu àqat la mooy lan yow Moussa jamono sàngam ba jamono sàngam a ma gis waxu ko ni pour toujours doo ma gis daf ko ni li tax muy nekk lanu mu àqat mooy adduna bii ñu ne doo ma fi gis ëllëg yowmal xiyaam yowmal xiyaam mën naa la mën naa la préparer mën ak ñu mel ay gët yoo xam ne dama koy préparer pour ñu attan gis ma gis ma am leen xel lan jooju bàyyi lan jooju lan jooju lanu mu akkat la lanu mu akkat la du lanu mu abbat du lanu mu abbat jamono sangam jamono sangam ba jamono sangam doo ma gis doo ma gis mooy mooy adduna doo ma fi gis ndax attanoo ma sa ñaari gët yi préparé wu ma ko pour mu gis pour mu gis sama xar kanam sama xar kanam waaye bu dee ëllëg waaye nag bu dee ëllëg xamuloo ni fii ci adduna xamuloo ni fii ci adduna yéen mbooloo mi ni ngeen ko fii fii kenn du fi gis yàlla. kenn du fi gis yàlla. na lan jaa tax. lan jaa waaye ëllëg. waaye ëllëg. ëllëg. ëllëg. yàlla préparé na. yàlla préparé ay bët yoo xam ne ci mën nañoo jàkkaarloo xar kanamam lan moo ko waral alquran wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira alquran la mu waxaat mu waxaat lilladina ahsanu alxusna wa ziyaada ziyaada boobu alxusna mooy àjjana ziyaada mooy gis yàlla àjjana li muy neex neex neex gis yàlla ko dàq fuuf yàlla ni Moussa yàlla ni Moussa li waral ma ni la mënoo maa gis li waral ma ne la mënoo maa gis dëkk wii dëkk fuuf moo la fuuf gën laa dëgër gën laa sut la gën laa fonkal na nanga xool nag na nga bu ma la ma la ma ciy la ma ciy sànni la ma ciy muri kiiraay yi yi sànni ko ca sànni ko ca doj bu yëngatuwul résister max nga xam ni mën nga maa gis ma gis yàlla jël la muy jël yàlla jël ko ca doj yàlla nee na ba ma ko ca dóoree dëkk ba ak réyaayam ponkalaayam dëgëraayam dafa maaseeg suuf maase dakkan Moussa yoonam ne wucce de ma nga fee waaye kisaas moom dara laalu ko dëkk ba ca la yàlla dóor la mu dóor saasi Moussa ma fee yoonam ne wucce dafa xam moom yàlla ni ko lii tax. mani la. mani la mënoo kon kooku wax ak Iblis nag. Iblis nag. ñëw ci Moussa. ñëw ni ko yow de xam naa ni yaa wax ak xam naa ne toog naa yàlla. te xam naa toog naa yàlla. ba daq na ma ba dàq na ma toroxal na ma toroxal na ma génne na ma àjjana génne na ma àjjana dig na ma sawara dig ma sawara dama bëggoon nag dama bëggoon nag comme yàlla def na comme yàlla def yàlla yaa wax ak nga balul ma ko nga balul ma yàlla <laughs> iblis iblis mooy ndax Moussa ni ko dama bëggoon. ne ko dama bëggoon. nga ak yàlla. comme wax nga ma ko. nga balul ma ko. Moussa ni ko waa baax na. Moussa ne ko waa baax na. yàlla di yërmandeem yaatu na. la ko defal. li nga la ah. di daal di yàlla. daal di ni ko sa waa ji de. ne ko sa waa ji de. nee na. dafa bëggoon. nga baal ko. ndax na xam na ne tooñ na la yàlla ni ko loolu garaaw yàlla ni ko mën naa baal waaye ci benn charte waaye ko charte bi lan la mu ni ko charte bi lan la mu ni ko mu ni na dem ci bàmmeelu aadama na dem ci bàmmeelu aadama comme dama ko waxoon si jóotalal aadama comme dama ko aadama mu bañ mu bañ te ba muy dund te ba dem na dem na dem si jóotal bàmmeel ma baal ko mooy mooy charte bi Moussa wax ko. Moussa wax ko. Iblis. Iblis. ne ko Moussa. Iblis ne ko Moussa. xanaa man yàlla bëgguma baal. xanaa man yàlla bëgguma baal. koo xam ne ba muy dund. lañ la wax. lañ la wax. su jóotal ko. su jóotal nga lànk. nga lànk nga bàyyi ba mu dee. ngay su jóotal ba meelam. loolu mënul nekk. mu ko waaye nag. mu ne ko waaye nag. wax nga dëgg. wax man maa dëgër bopp rek. waaye yow itam. balaa ngay dem. balaa ngay dem. dinaa la dénk. dinaa la dénk. loo xam ni. loo xam ni. yow ak ku déglu. yow ak ku déglu. boo ca muccee. mucc nga ci man. mucc nga ci man. mu ko waxal. mu ne ko waxal. mu ni ko mu ni bu njëkk bi mooy bu njëkk bi mooy bul wéet mukk ak jigéen ak jigéen ñu sa soxna bu ngeen wéetee bu ngeen yaakaar nga ni yaakaar ñaar yéen la képp fekk maa nga ca diggante ba te ma wóorul mu ni ko beneen bi defal loo mën defal ba bul mer ba bul mer bul mer ndax ndax nit bu meree nit bu meree man iblis man maa maay maay fooye xolam maay fooye xolam buy def sax buy def sax naka su fekk na man la fekk ni xale ni xale di yore bal di yore bal di ko foye di ko yaramam fu ko neex foye ko ca man iblis noonu laay foye xolu xolu ku mer gis nga gis yàlla ñu yàlla mu ci iblis yàlla ñu ci iblis yàlla nañu yàlla musal ci iblis yàlla nañu yàlla musal ci iblis yàlla nañu yàlla musal ci iblis yàlla nañu yàlla musal ci iblis gis nga Seydina Muhammad nee gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam lan moo waral lan moo waral bi mu amee ñaari at bi mu amee ñaari at ak ñaari weer ak ñaari weer ñu xar xol ba ñu xar xol ba dindi ca bu ñuul dindi ca Muhammad nekk ci jikko ju rafet màgg xam nga tey boo xoolee ba xool xam nga tey yaakaar naa ni naa ne sunu xalifa bi sunu xalifa bi Seydi Aboubacar Mouhamadin il Mansour Seydi Aboubacar Mouhamadin Mansour yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla may wér yal na yàlla àggale ay naalam yal na yàlla àggale ay naalam moom bu doon sagoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp am jikko ju rafet moom bu doon sagoom ñëpp ñëpp ñëpp am jikko ju rafet bu doon sagoom kenn du bon bu doon sagoom kenn du bon bu doon sagom ñëpp dañuy jub. waaye yàlla mooy jubal ku ko neex. ko neex. moo tax toujours. moo tax toujours. day bëgg. day bëgg. gisoo ren. gisoo ren. mu tànn. temu. temu. xadis ba. xadis ba. bu Seydina Muhammad Seydina Muhammad innama bu'istu innama bu'istu bu moom la ñu tànn rek li utammima li utammima makaarimal axlaaq Seydina Muhammad nee na man yàlla daf may yónni man yàlla daf may yónni sama mission mooy sama mission mooy euh, maanaam innama ma innama boo ko déggee boo ko déggee lil xasri lil xasri pour takk la pour ndekete Seydina Muhammad Muhammad nee na nee na man ndekete man ndekete ak lu mën a am ak lu mën am yàlla yàlla sama mission sama mission mi ngi ko tënk ci tedd ngay jikko tedd ngay jikko tedd ngay jikko tedd nit bu amul jikko gis nga nit bu amul jikko bàyyi ma billahi wallahi tallahi ma ni nit bu amul jikko amul jikko bàyyi ma la bàyyi ma la wala bàyyi ma gën ko sax bàyyi ma gën ko moo tax Seydina Muhammad moo tax Seydina Muhammad xaru xol bu njëkk ba xaru xol bu njëkk ba moo tax Seydi Malick wax ko ca xilaas ba wa baada amayni wa shahrayni suqa lahu sadrun wa fi lbaxthi wal israai shalami wa sadrahu xatamat yumna al amini falam yufsha alladi fiihi xatman xayra muttafi Seydi Malick moo ko wax وشهرين سلطانه فدور الواد البحث والإفعال الصلاة وتزيل الأمان وتجي عنا محمد من المختار بالإيمان حسبوه حسبا ومن الأبين فلا حسبا لذكره قد رأت خير xam nga. mais xam nga. Seydina Muhammad. Seydina Muhammad. xar xar nañu xolam ñetti yoon. xar nañu xolam ñetti yoon. benn bu ci nekk am na lu ko waral. benn bu ci am ko waral. bi mu amee ñaari ak ñaari weer. bi mu ñaari weer. xar nañu xol ba. xar nañu xol lan moo waral ñu xal xol ba. moo jibril moo ko xar. jibril ko xar. opéré dindi lumbu bu ñuul. dindi lumbu bu ñuul. lumbu boobu. lumbu boobu moo tudd. moo tudd. xafdul bashariya. lumb boobu. lumb ñu ngi tudd bachariya. ñu ngi tudd bachariya. ñun ñëpp ñu ñun ñëpp am nañu ko. ñun ñëpp ñun ñëpp. alaaji mi ci yow. alaaji mi ci yow. lumb boobu. lumb boobu man Mame Malick. man Mame Malick. mi ngi ci man. mi ngi ci man Cheikh Dramé. mi ngi ci yow. mi ngi ci yow. Abdourahmane. Abdourahmane Ndiaye mi ngi ci yow. keneen ak keneen ku fi ne. ku fi ne mi ngi ci yow. mi ngi ci yow. waaye Seydina Mouhamed. nee Seydina Mouhamed. moom dañ ko dindi ci moom. moom dañ ko dindi ci moom. teg fële. teg fële raxas xol ba. raxas xol ba ba mu set. ba mu set pour Seydina Mouhamed. pour Seydina Mouhamed. màgg nag. màgg nag ci jikko ju rafet. gis nga bachar yee boobu. gis nga bachar yee boobu. comme mi ngi ci ñun. comme mi ngi ci ñun. ñun ñëpp kenn ku ci nekk. ñun ñëpp kenn ku ci nekk. mooy waral. mooy waral bachar yee boobu. bachar yee boobu bu nekkee ci yow. bu nekkee ci yow mooy waral. mooy waral nga añaan nga añaan. waaw bachariya boobu bu nekkee ci yow mooy waral nga añaan Muhammad dindi nañu bachariyaam dootul añaan waaye ñun par force nga añaan ndax bachariya boobu nekk ci yow par force nga añaan par force soxor par force boddi konte par force mana par force rëy par force fëgg dënn par force nangam nangam jikko yu bon yooyu wax leen. wax leen rek. wax leen rek. wax leen rek. déggu leen ma de. ne déggu leen ma de. dama ni Bachariya. dama ne Bachariya. Seydina Muhammad. Seydina Muhammad. lumbu boobu. lumbu boobu. ñu dindi ci moom. ñu dindi ci moom. mooy Bachariya. mooy Bachariya. na ngeen jàpp tur wi. na ngeen jàpp tur wi. ñun kenn ku ne mi ngi ci ñun. kenn ku nekk mu ci waaye Mouhamad nag. waaye nag Mouhamad. nekkatul ci moom nekkatul ci moom ndax dindi nañ ko. ndax dindi nañ ko moo tax may wax ni. moo tax may wax ne. Seydina Mouhamad Seydina Mouhamad. yàlla da koo taxawu. yàlla da koo taxawu. service camarade. service camarade waaye sa camarade. ni ko yàlla taxawoo ni ko yàlla taxawoo ñun ñii ñun ñii ku mu ku mu ku mu ku mu ko taxawoo yàlla xam na ni ñu mel ni moom rek waxal wax la dëgg la dañ ne am ñaari at. nga am ñaari at ak ñaari weer. ñu xar sa xol. ñu di ci lumb. lumb boobu ñu raxas xol ba ba mu set. yow léegi sa xol amatu ca place kañaan amatu ca place soxor amatu ca place boddi konte amatu ca place mana amatu ca place fëgg dënn Muhammad du soxor Muhammad du añaan Muhammad du bu dënn Muhammad du ni mana Muhammad du rëy Muhammad du du du du du yooyu yëpp set na ci moom. set na ci moom. set na ci moom loolu taxaw. loolu taxaw. waaye man ñii. waaye man ñii. basariya. basariya mi ngi ci man. mi ngi ci man. lumu boobu. lumu boobu. mi ko. Alaaji Baas. Alaaji Baas mi ngi ci yow. ci yow. Abdourahmane mi ngi ci yow Mansour Diouf mi ngi ci yow Cheikh Dramé mi ngi ci yow Imaam mi ngi ci yow jigéen ñi mi ngi ci ñoom góor ñi mi ngi ci ñoom waxambaane yi mi ngi ci ñoom mag ñi mi ngi ci ñoom ndaw ñi mi ngi ci ñoom jànq ñi mi ngi ci ñoom ñëpp loolu du ay dikko yu bon loolu du ay dikko yu bon wax leen. wax leen. Seydina Muhammad. nee Seydina Muhammad. ñu dindi ko ci moom. moom. ba amatul jikko yooyu. ba waa léegi nag. waa léegi nag. ma leen laaj. ma laaj. comme ñun ñëpp mu ngi ci ñun. mu ngi ci ñun. laaj baa ngoog nag. laaj baa ngoog may tontu de. su ma laajee rek dina may tontu. waaw yéen mbooloo mi dama leen di laaj. yéen mbooloo mi dama leen di laaj. Abdourahman. Abdourahman. est-ce que kañaan lëmbewul àdduna. est-ce que kañaan lëmbewul àdduna. est-ce que mbon lëmbewul àdduna. est-ce que mbon lëmbewul àdduna. est-ce que fëgg dënn lëmbewul àdduna. est-ce que fëgg dënn lëmbewul àdduna. est-ce que mana lëmbewul aduna ce que mana lëmbewul aduna est-ce que fen lëmbewul aduna est-ce que fen lëmbewul aduna aduna est-ce jëw lëmbewul aduna aduna est-ce que rambaaj lëmbewul aduna naw jëf naw nangam ak yëpp yooyu bi nekk ci ñun bachariya bi nekk ci waay moo ko waral eh yow. loolu loo eh, eh, eh, tudd yow. ah. Xaaj Malick Gueye xam naa la mais dama ba ko waxee noonu. Ah, du ana sa ana sa bachariya. ana sa mu ci yow nangu nga ko. nangu nga ko muy lumb bi. muy lumb xam moom la ñu dindil Seydina Mahamed. moom la mi ngi ci yow. waaw na nga na nga jàpp loolu de. na nga jàpp loolu kat te mi ngi ci sa xol. te nag mi ngi sa xol. gis nga doomu aadama xol la. gis nga doomu aadama xol la. nit xol la xol. nit xol la. moo waral mbiru xol moo waral mbiru xol nañ ciy téy nañ ci téy Seydina Muhammad moo wax ci xadis ni inna fil jasadi inna fil jasadi la mudghatan la mudghatan ida salahat ida salahat salaha al jasadu kullu wa ida fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yéen sant nee na am na benn lumb bu nekk ci doomu aadama boo xam ni bu baaxee yaram yëpp baax. am na benn lumb bu nekk ci doomu aadama boo xam ne bu baaxee yaram ba yëpp baax. bu bonee yaram yëpp bon. bu bonee yaram ba yëpp bon. ne ko boobu lumb lan la mu ni mooy xol. mu ni mooy xol nee na bu baaxee. na xol bu baaxee yaram yëpp bu bonee. yaram yëpp bon. yaram yëpp bon koo dégg. koo koo dégg ci àdduna. koo lan la lay wax. lan lay sa xol bu bon bi. sa xol bu bon bi. dégg sa bët bu bon bi de. wala sa bakkan bu bon bi de. wala sa nopp bu bon bi de. wala sa loxo bu bon bi lan la ñuy wax. sa xol bu bon bi. moo warul xol. xol. yàlla dafa ni. yàlla dafa ne sama domaine la sama domaine la sa yoon nekku yow sa yoon nekku yow nit ki maa koy jël maa koy jël def ca la ma neex yóbbu ko fa ma neex sa bët fu la neex xoolal garaawul sa bakkan lu la neex noyyi sa nopp la neex déggal sa làmmiñ lu la neex mosal sa loxo lu la neex na làmb sa tànk fu la na dem sa xol man yàlla li sama kattan maa cay def na ma neex maa koy yóbbu neex moo waral toujours ma di ko wax gaa ñi di ma ree ma ni leen xol xol yàlla moo koy jël yóbbu ko fa ko neex yàlla million jox kenn ni ko ni ko bëgg ma te fekk ma nga woon feneen danaan la waaw lekk million ba delluwaat fu mu nekkoon xol mooy nit xol léegi nag waaw léegi ma tontu de li ma tontu nag. samay soxla. du samay soxla. may leen lii. may leen lii. te mësuma ko may kenn. te mësuma ko may yii man du ma ci ñëw. yii man du ma ci ñëw. Cheikh Dramé wax na ko léegi. wax waaye yéen may naa leen ko. waaye may naa loo ma ñaan ma may la ko. kon sa mbooloo mii. sa mbooloo mii sa mbooloo mii ñu barkeelu ci yow ñu barkeelu ci yow nga nekk Chine ñaan ma lii nga nekk Chine ñaan ma lii man la dinaa la tontu man la dinaa la tontu yéex naa laa tontu de yéex naa la tontu sa pas-pas la ko may sa pas-pas nag moo la ko may ak sa bëgg Tiwaawan ak sa bëgg Tiwaawan ak sa ñàkk jaxase ak Maalik dara ñàkk jaxase si yaa ji Maalik dara ma may la lii ma may la lii ba heure bii ba heure bii waaye yii moom. waaye yii moom. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. du ma ci faral di. du ma ci faral di teew. laaj bi nag. laaj bi nag. yéen mbooloo mi ma nag. yéen mbooloo may wax. léegi lii may wax. tey laa leen ko may. tey tey laa ko may seen mbooloo mi seen mbooloo mi comme Seydina Mouhamed dañoo dindi ci moom lumbu comme Seydina mu màgg ci mbaax pour mu màgg ci mbaax benn jikko bu bon dootul nekk ci moom benn jikko bon dootul nekk ci moom comme ñun bachariya boobu mu ngi ci ñun comme ñun bachariya boobu mu ci ñun te kenn dindiwu ko ci ñun. te ñun kenn ko ci ñun. raxasuñu suñu xol. raxasuñu suñu xol. di leen laaj la ñuy fexee ñuy fexee ba. dindil ko. dindil suñu bopp. suñu bopp di ngeen ma tontu de bu bu bu ngeen ma tontuwul nag. nee bu ngeen ma tontu nag. ma xam ni kon. ma xam ne kon. war nañoo seetaat xol yi. war nañoo seetaat xol yi. loolu du tontu bi. nee na loolu moom tontu. imaam. imaam. imaam nee na gëm yàlla. imaam na gëm yàlla. imaam jërëjëf. imaam jërëjëf. waaye dafa mel ni nag. waaye dafa mel ni nag. tontu bi des na. tontu alsan alsan mu ne sopp Seydina Muhammad des na man nag man ngeen baal ma nee ma nii la yàlla bindee yàlla bindee mbooloo mu ma dem mbooloo mu ma dem dama koy trans daara dama koy soppi daara ku tontu lu mu wax lu mu fonk julli. waaw xam xam naa ni euh, xam xam naa ni loolu loolu xaw na ci. wa wa wa aqimi salaata. wa aqimi salaata. inna salaata. inna salaata. tanha. tanha anil fahshaa'i wal munkar dëgg la dëgg la. ndax xam nga. ndax xam nga. yéen mbooloo mi. yéen mbooloo mi. ma xamal leen leen maanaam des na ci tontoom laay bëgg a waxat. mais tontoom la ci laa bëgg a tontu tuuti. ngeen baal ma ngeen baal ma. gis nga. gis nga. Euh, julli julli xam nga xam nga dafa am lu ñuy wax dafa am lu ñuy wax islaam islaam am lu ñuy wax am lu ñuy wax iman iman am lu ñuy wax am lu ñuy wax ihsaan am lu ñuy wax am lu ñuy wax ixlaas ñu bëri seetlu wu ñu loolu ñu bëri seetlu wu ñu loolu ihsaan la ñuy yem ihsaan la ñuy yem waaye waaye ñu mos tasawuf ñu mos tasawuf ixlaas ixlaas nit dana nekk nit dana nekk muslim day nekk muslim dem ba ci jëmi jamono mu nekk mu'min dem ba jëmi jamono mu nekk muhsin dem ba jëmi jamono mu nekk muxlis boobu nag mooy bu kawe bax gaañi ihsaan la ñuy yem ñu los dañuy dañuy xuus ba ca a maa la ko wax maa la ko kooku kooku xadisul xudsi yàllaa ko wax yàlla nee na al ixlaasu sirrun min asraari adauhu fi qalbi man acha wala yasauhu malakun muqarrab wala nabiyun mursal mooy ixlaas nee na lixlaas sama secret la secret la ci samay secret man yàlla maay jël xoolu ka ma neex ma teg ko ca yoonu nabiyun mursal newu ca yoonu malakul muqarrab newu ca man yàlla maa kama ko séqal lii waral mu mën la teqale ak ak ak ak mbon wala lu ñu tere lii waral julli lu ñu tere xam nga tey xam nga tey yéen mbooloo mi yéen mbooloo mi du du ñu yow muslim nga wala yow abdu muslim nga muslim muslim muslim mooy lan muslim mooy lan jullit déedéet déedéet muslim du firi jullit de firi jullit Abdourahmane nag muslim mooy la قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان الشرط الباقيات ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة والنيران وأما الإحسان فقال من دراه an taabudallaha ka annaka taraah in lam takun taraahu innahu yaraak wa diinu di salaatu xud aqwa uraak borom naas ñoo ko déggandoo lu tax ngeen ni muslim mooy julit lu tax ngeen ne muslim mooy julit ah ah ah ah ah, ah. tontu leen maanaam maa ngi ñëw ca maa ngi waaye kilifa gi li mu wax. waaye moo tax moom laa ko bëgg a tojal. moom laa ko bëgg a tojal. demaat fee. demaat mooy. mooy. muslim mooy lan. muslim mooy lan. yéen mbooloo mi tontoogu leen ma de du ngeen ma tontu wala xaaral xaaral ma jóg dem toog <laughs> ah damay dem de wax dafa métti wax dafa métti muslim mooy lan muslim mooy lan mu'min mooy lan mu'min mooy lan muhsin mooy lan muhsin mooy lan mbooloo mi yëpp ànd nañu si laaj la loolu mooy lan dañ toog rek rek kenn amu xam nga tey kon ndekete. ndekete kon tey. ponki lislaam. ponki ndax tey. ndax tey. xoolee xool. lii. ak lii ak lii bu lii amul bu lii amul lii du ñu muur lii du ñu bu tawee du ñu tooy bu naajee du lii tey moo waral loolu waaye bu dul lii lii du am ponki lislaam julli koor azaka aj makka ak baatu seede kon ndekete Abdourahmane ndekete yow kon da ngaa ni kon ndekete yow ni yow gay da ngaa ni imam da ngaa ni

loo bari bari bari julli. loo bari bari këpp këpp këpp këpp. taxul nga nekk muslim. taxul nga nekk muslim. xam ko waral. xam nga lu ko julli mën a teq mën la teqale. pour jëf ju bon. mooy yàlla. mooy yàlla jëf ju ñaaw. jëf ju ak lu ñu si. ndekete. julli booba. par force. nga defee ko nañ la ko sante nga defee ko nañ la ko sante yàlla waxul addu salaata yàlla waxul addu salaata waxul jooxe leen du dafa ni aqimu salaata fa aqimi salaata tarafay nahaar wa zulafan min al layli inna alxasanaati yudhibna sayi'aat aqimi salaata la wax aqimi salaata la wax aaya boobu moo faratal julli moo faratal julli defee ko nama la ko sante defee ko nama la ko sante gis nga julli naafiq mënu ko naafiq mënu ko maa la ko wax maa la ko wax julli naafiq mënu ko julli naafiq mënu ko julli ku ragal yàllaa ko mën julli ku mën a muñ a ko mën ku mënu la muñ danoo defee julli na la ko yàlla sante la loo waral yàlla ni pour nga mën a julli fokk nga fokk nga wéeru ci jikko bi ñuy wax muñ واستعينوا واستعينوا بالصبر بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي لثقيلة واي إنا على الخاشعين قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون كيلونا كيلونا وي جم ñan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 أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون yàlla nee na way gëm ña way gëm ña texe nañu kiilu lañu kiilu ko ñoo ñan la mu ni ñi nga xam ne ñuy julli bu ñuy julli julli day ànd ragal yàlla day ànd ak ragal yàlla dooy ya muñ gë coono ba ba pare yàlla ni dangay sukkandiku ci jikko bu ñuy wax muñ pour nga mën a def sa julli mu ni yàlla mu ni julli kenn mënu ko def ku dul ki ma ragal man yàlla واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي julli la taqilatun diis na lool waaye ki ma ragal man yàlla diisul ci moom nga def ko na la ko yàlla sante nga def ko na la ko yàlla sante julli dafa am leer dafa am leer kilifa gi laay tontu maay tontu imam de ma ne julli. ne julli. dafa am leer. dafa am leer. boo ko defee. boo ko defee ne la ko yàlla sant. la ko yàlla sant moom julli. moom julli day ànd ak. day ànd ak leeram branché wu. branché wu ci sa xol. koor ñëw. koor ñëw ànd ak leeram. branché wu ci sa xol. aj makka ñëw. ànd ak leeram branché wu ci sa xol. azaka ñëw. ànd ak leeram branché wu ci sa xol. bu ñu bu ñu branché wu nag. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ci sa xol. dañuy taal xol ba. ñoom ñooy taal xol ba. bu ñu ko taalee. bu ñu ko taalee. buñ ko taalee buñ ko taalee ci saa si ci saa si lépp lu bon lépp lu bon doo too ko def doo too ko def xol bi tàkk na léegi xol bi tàkk na léegi jóge nga ci léegi jóge nga ci muslim muslim nem dem nga ci dem nga ci mu'min mu'min waaw léegi xadis ba waaw léegi xadis ba lu Seydina Muhammad wax lan la Seydina Muhammad wax dama ni maa ko wax fii laa wax ne maa ko wax fii la fii laa ko ay kanami gor. kanami gor. ay boromi xam-xam. ay boromi xam-xam. ay ulamaa u. ay ulamaa u. ñu ma raw fuuf. ñu ma raw fuuf. maani. maani. julli yu bari. julli yu bari. taxul a nekk muslim. taxul a nekk muslim. bu ko ragal yàlla lalul. bu ko ragal yàlla lalul. xam nga kuy muslim. xam nga kuy muslim. <laughs> beneen laaj nga bi de. beneen laaj nga kan mooy muslim. waaw. yéen mbooloo mi laaj naa leen kan mooy muslim sëriñ ne mbooloo mi laaj naa leen kan mooy muslim al islam al islam muy masdar ma muy masdar ma fi'lu maad ma fi'lu maad ma aslama aslama fi'lu mudaari'u ma fi'lu mudaari'u ma yuslimu yuslimu ismu faa'il ba ismu faa'il ba muslim muslim aslama aslama yuslimu yuslimu huwa muslimun islaaman islaaman foofu lañ jëlee lislaam foofu may laaj yéen mbooloo mi nag may laaj nag mbooloo mi kan mooy muslim kan mooy muslim fi nekk tontu leen ma fi nekk tontu leen ma du ma continuer du ma continuer Cheikh xamoo kuy muslim. mais xam ngeen kenn mu muslim. ñu wax nañu kenn muslim. Seydina Mouhamed moo ñu ko leeral. mais Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko leeral. ci xadis bu am solo. bu wax ko nag ci xadis bu am solo. Seydina Mouhamed dafa wax ne. Seydina Mouhamed dafa wax ne. xoolal yonent bi njuuy na gaañ. xoolal yonent bi njuuy na gaañ. njuuy na gaañ. njuuy na gaañ. dafa wax ne. dafa wax ne. al muslimu. al muslimu. man man salima salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wa yadihi déggu bi njuuy na gaañ. al muslimu. al muslimu. man. man salima. salima. al muslimuna. al muslimuna. min. min lisaanihi. lisaanihi. wa. wa yadihi. yadihi. Sidina Muhammad nee na julli yu bari du taxul nekk muslim. nee na julli yu bari taxul nekk muslim. koor yu bari taxul nekk muslim koor yu bari taxul nekk muslim azaka yu bari azaka yu bari aj yu bari déedéet Seydina Muhammad na al muslimu al muslimu ab jullit ab jullit man mooy ka nga xam man mooy ka nga xam salima salima mucc na mucc na al muslimuuna al muslimuuna ay moroomi jullitam ay moroomi jullitam ci lan lañ mucc lan lañ mucc min lisaanihi min lisaanihi ci làmmiñam wu ñaaw ci làmmiñam wu ñaaw ci làmmiñam wu ñaaw ci làmmiñam wu ñaaw kuy xas moroomu jullitam du muslim kuy xas moroomu jullitam du muslim kuy saaga moroomu jullitam du muslim kuy saaga moroomu jullitam du muslim kuy yejji moroomu jullitam du muslim kuy yejji moroomu jullitam du muslim min lisaanihi wa yadihi ak jëfam ju bon ak jëfam ju bon yedd yedd boobu du firi loxo du firi loxo jëf ju bon jëf ju bon lay firi si doomu Muhammad nee na. yéen ci kii mooy muslim. kii mooy muslim. am na loo xam ni. am na loo yëgu leen ko. yëgu leen waaye ndekete bis bu nekk mu am. waaye ndekete bis bu lu bees a ngoog. a muy xadis. muy xadis. Abdourahman loolu bis bu mu dal la. man man bis bu mu dal ma bis bu ne mu dal waaye nekkati du ma ko yëg bu nekk bu nekk ma jànkoonteeg loola ma jànkoonteeg loola day noonu day noonu Cheikh Bas noonu ñu fi teew ñëpp kenn ku ci nekk bis bu nekk bu nekk di ngay jànkoonteeg loolu jànkoonteeg loolu te yëgoo ko yëgoo Seydina Mouhamed nee na ida asbaxa ibnu aadama ida asbaxa ibnu aadama fa inna al aadaa kullaha tukaffiru lisaan fa inna al aadaa kullaha tukaffiru lisaan lisaan taqulu taqulu ittaqi llaha fiina ittaqi llaha fiina fa innama naxnu bika fa innama naxnu bika fa in istaqamta istaqamnaa fa in istaqamta istaqamnaa wa inni awajajta iwajajna wa inni awajajta iwajajna إذا أصبح ابن آدم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا فإن استقمت استقمنا وإني أوجدت إعوجدنا وإني أوجدت إعوجدنا رواه الترمذي رواه الترمذي حسن صحيح حسن صحيح Seydina Muhammad nee na. Seydina Muhammad nee na. saa yu doomu aadama xëyee. saa yu doomu aadama xëyee. Abdourahmane na ngeen ko bàyyi xel de. Abdourahmane ngeen bàyyi xel wax boobu. wax wax yéen jërëjëf. saa yu doomu aadama man man man ma jël man man. ma jël exemple ci man. saa yu ma xëyee. saa yu ma xëyee. ndekete. ndekete. du ma ko yëg nag. du ma ko yëg nag. war a doxi soxla. war a xëy doxi soxla. génn guma. génn guma. Seydina Muhammad nee na. yéen saa salaam nee na. saa yu doomu aadama xëyee. saa yu doomu aadama bu xëyee. cëram yëpp. cëram yëpp. loxo. loxo. bët. bët. bakkan. bakkan. làmmiñ. loxo. loxo. bët. bët. tànk. tànk. nopp. nopp. nopp. ñoom ñoom ñëpp dañuy àndoo. ñoom ñëpp ñooy àndandoo. ñëw ci làmmiñ. ñëw ci làmmiñ. ñoom ñëpp ñu sukk. ñoom ñëpp ñu sukk ci kanamu làmmiñ. cër yooyu yëpp. sukk ci kanamu làmmiñ. raam. raam. ni ko ay làmmiñ. ragalal yàlla ci ñun. yàlla ci nga dimbali ñu. dimbali yàlla ñun. ragalal yàlla ci ñun. tey. tey kii mi ngi fas yéene génn. tey kii mi ngi fas yéene génn. ñun ñu ngi dépendre ci yow. ñun ñëpp ay ceeb ñu ngi dépendre ci yow. boo jubalee. boo jubalee. suñu affaire baax. ñun ñëpp suñu affaire baax. ñu jubal ñu jubal. boo dëngalee. boo dëngalee. ñu àgg pour ñu àgg. waaye dimbali waaye la ay lamiñ dimbali ñu. waaye waaye lamiñ dimbali ñu. dimbali. Seydina Mouhamed nee na. yéen saa yu doomu aadama xëyee saa yu doomu aadama xëyee. lammiñ. lammiñ cër yi. cër yi nii la ñuy def ci moom la ñuy ko ci moom. sukku sukku raam wax ko lii. wax ko lii. moo tax Seydina Seydina Muhammad ni. moo tax Seydina Muhammad ni. ab jullit. ab jullit. mooy koo xam ni mooy koo xam ne say moroomu jullit say moroomu ci sa làmmiñ ci sa làmmiñ waaye itam waaye itam mucc nañu ci sa jëf ju bon xanaa xam leen ni loxoy jëf xanaa xamu leen loxo muy jëf moo tax yàlla moo tax yàlla buy wax ci wàllu jëf buy wax ci wàllu jëf tabbat yadaa abi lahab abi lahab lu tax yàlla waxul lu abu lahab tabba toskare na torox na alku na perte na abu lahab lu tax waxul ko yàlla mënoon na ni tabba abu lahabi lu tax yàlla waxul tabba abu lahab mu dem bàyyi fi bët bàyyi fi bakkan nopp tànk mu ni tabbat yadaa abi lahab loxooy jëf. loxooy jëf yàlla nee na. yàlla nee na. tabbat torox na. tabbat torox na. tabbat alkuna. tabbat alkuna. tabbat perte na. tabbat perte na. tabbat sooy na. tabbat sooy na. yadaa abi lahab. yadaa abi lahab. jëfu abu lahab. jëfu abu lahab. du mu mës a def rek. du mu mës a def rek. wa tabba. wa tabba. loxooy jëf. loxooy jëf. fetal. fetal. loxo koy téye. loxo moo koy téye. waxal. xeej loxoo koy téye fet loxoo koy téye loxo mooy jokkalante ay commerçant ngeen wax leen boo bu ngeen di bu bu ngeen jaay seen marchandise da koy ŋànk loxo loxo loxo sa loxo sama loxo marchandise xaalis wax waxal yow booy jaay dana dooy jël sa sa marchandise ku ñëw jaay jaay ma moo waral yéen moo leen moo wax benn secret xaalis dul xaalis déedéet xaalis tuddul xaalis fi léeg gisul lu mu jënd xamu leen ni Abdourahmane lu cher amul lu cher amul xanaa waxati naa. xanaa dégg ngeen wax bi. ma ni lu cher amul mais lu cher amul. dara cheru. dara cheru. xam nga lu am. xam nga lu am. loo gisul. loo gisul. wala nga gis ko te bëggoo ko. wala boog nga gis ko te bëggoo ko. wala nga bëgg ko te amoo njëgam. wala nga gis ko bëgg ko te amoo njëgam. wala déggu leen ma. wala déggu leen ma.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 xam nga fa la tuddee xaalis. xam nga fa la tuddee xaalis. commerçant yi wax leen. commerçant yi wax leen. nga jël ko. nga jël ko. dem ca boutique ba. dem ca boutique ba. jël ko. jël ko jox commerçant bi. jox commerçant bi. jaay ma. jaay ma jamono booba. jamono booba mu jël marchandise. mu jël marchandise jox la. jox la jamono booba. jamono booba ci la tudd. ci la tudd xaalis. xaalis boo ko defee sa poche. boo ko defee sa poche tuddatul xaalis. kon kon maa ngi maa ngi tontu laaj bi maa ngi tontu laaj bi tëj ñaan tëj ñaan ko waral xamoo lu ko waral ndekete man ndekete man sànq ba léegi maa ngi laaj waaye ndekete kenn ku ne wax na waaye daal laaj bi daal dafa mel ni tontu leen ba laaj na bi rek dama leen di laa biir rek xam nga mooy comme ñun kenn dindiwul suñu lumb. suñu lumb boobu. lumb bi. lumb bi. Seydina Muhammad. Seydina Muhammad. ko dindi ci moom. lañ ko dindi ci pour mu màgg ci jikko ju rafet. ñun. suñu lumb. suñu muy bachariya bi. ñu ngi ci ñun. mu ñu añaan. foog ñu añaan soxor. boo di foog dënn. foog waaw nan lañu ñuy ba dindil ko. ba dindil ko suñu bopp waaw boobu laay tontu. la nga leen di daay biir. guddi leen di ñaan nag. dama leen di ñaan nag. man du wax sànni. du ma wax nag sànni. man wax di man du ma wax di sànni. dama sama wax. dama bëgg sama wax. na ma la ko waxee. na ma la boo ko mënee jàpp. boo ko ndax man yàlla ma bindee benn jikko ndax man ma sama sago bu doon kenn du bon kenn du bon ma man Mame Malick man Mame Malick sama sago bu kenn du bon xamu leen ni yéen mbooloo bi ma wax benn wax gis nga kenn bëggu la bon. nee mbooloo bi ngeen xam ne kenn bëggu la bon. ñu ni kon lu waral nit di bon. ñu ni kon lu waral nit di bon. te bëggu la bon. te bëggu la bon. mani mani dafa xamul mbonuk bon. kooku bon dafa xamul mbonuk bon. bu xamoon mbonuk bon. bu xamoon mbonuk bon. du bon. du bon. kon ka xam mbonuk bon. kon ka xam mbonuk bon. war na koo wax mbonuk bon war na koo wax mbonuk bon ba du bon kon mooy <laughs> kenn bëggu la bon kenn bëggu la bon ku bon ku bon da ngaa xamul mbonuk bon da ngaa xamul mbonuk bon mani mani waay waay suñu lumb yi waay waay waay suñu lumb yi waaye nus koy koy dindee waay laajaat naa de laajaat naa de dana lay nga yéen mbooloo mi na ngeen xam leen na ne yéen mi na xam leen gis nga Seydina Muhammad gis nga Seydina Muhammad ba ñu dindee lumb bi ba ñu dindee lumb bi ba raxas xol ba ba raxas xol ba ba mu pare ba mu pare ba xol ba set ba xol ba set comme Iblis moom day yàq xolu xolu xolu jullit comme Iblis day yàq xolu jullit ci la yàlla wax ni ci la yàlla wax ne Jibril Jibril jëlal xaatim nubuwa jëlal xaatim nubuwa nga saañ ko nga saañ ko fi iblis war a jaar fi iblis war jaar xaatimu nubuwa xaatimu nubuwa la sa nungu ba sa nungu ba nooy def ba nooy def bu ëllëgee yéen ñëpp ngeen bàyyi ko xel. ngeen bàyyi xel. dama leen a ko mooy. kenn ku nekk. kenn nekk sa bëkk néegu xol. sa bëkk néegu xol. xam ngeen luy bëkk néeg. xam néeg. ku dugg ci kilifa ku dugg ci kilifa moo la dugal. moo néeg. mooy nekk ci buntu. mooy nekk ci buntu. sëriñ bi. sëriñ bi wala kilifa gi. wala kilifa gi ku ñëw. ku ñëw nekk gan. nekk gan moo lay segg. moo lay segg ndax war ngaa dugg. war nga dugg wala waroo dugg. wala waroo dugg wala yaay kan. wala yaay kan na nekk na fexe ba nag. na fexe ba nag moom bëgg nekk. moom bëgg nekk kenn dañ koo jar. kenn dañ ko jar mu doylu. mu doylu. xam nga mooy lan. xam nga mooy lan. kenn ku nekk nekkal sa bëkk néegu xol kenn ku nekk nekkal sa bëkk néegu xol xol doomu aadama xol doomu aadama ñun ñëpp ci yem ñun ñëpp ci yem xolu doomu aadama xol doomu aadama ñeenti boîte postale la ñeenti boîte postale la am ñeent ñeent ñeenti boîte postale ñeenti boîte postale xolu doomu aadama xol doomu aadama boo gis boo gis am na ñeenti boîte postale am na ñeenti boîte postale bu yàlla bu yàlla bu malaaka bu malaaka bu bakkan bu bakkan bu seytaane bu seytaane na fexe ba na fexe ba nekk sa bëkk néegu xol nekk sa bëkk néegu xol ñaar ñi bu ñuy posté seen lettre ñaar ñi ñu dugg bàyyi leen ñu dugg la ñuy posté. la ñuy posté lu baax la. lu baax la ñeneen ñaar ñi. ñeneen ñaar ñi fexeel ba. fexeel ba ràññeet leen. ràññeet leen ba. bu ñuy posté seen lettre nga ni leen du ngeen du ndax la ñuy posté baaxul te mooy seytaane ak bakkan nga bàyyi bu yàlla bu ñëwee bàyyil di posté bu malaaka bu ñëwee bàyyil di posté bu seytaane bu ñëwee bu ko bàyyi bu iblis ñu maanaam bu iblis ñëwee bu bu ko bàyyi bu bakkan ñëwee bu ko bàyyi ndax la ñuy posté baaxul yàlla lu muy posté ba ba nga war koo bàyyi tawfiq bu ko bëgg tawfiq ilaahi. tawfiq ilaahi. malaaka. malaaka. lu muy posté. lu muy posté. ilham. ilham. ruya xitaabu. ruya xitaabu. si ay maali ko. si ay maali ko. ruya xitaabu. kadal ilqaaw min malakin maratibul wax yàlla bu ñëwee. yàlla bu ñëwee. di posté. di posté bàyyi ko mu jàll. bàyyi ko mu jàll tawfiq. tawfiq lay posté. lay posté malaayika bu ñëwee. bu ñëwee di eh, di posté. bàyyi mu jàll. ilham lay posté. seytaane nag. bu ñëwee. di posté. bu ko bàyyi. lan lay posté. was wasa. was jax jaxal bakkan. bu ñëwee. bu ko bàyyi lan lay posté. Euh, euh, bànneex alhawa alhawa kon boo nekkee sa ba sa bànneex kon yow boo nekkee sa pëtni ni du xom bu yàlla di posté bu yàlla di posté tawfiq tawfiq lay posté bàyyi ko jàll malaaka bu ñëwee ilham lay posté bàyyi ko mu jàll seytaane bu ñëwee jax-jaxal lay posté bu ko bàyyi mu jàll bakkan bu ñëwee bu ko bàyyi mu posté ndax moom la muy posté mooy bànneex te ku topp sa bànneex nag